justement tàggat euh, xale yi ay xale yu ñu tànn ci fukki commune ak juróom-ñett ci ñeenti département yi nga xam ni mooy Dakar alors lu ñu bëggoon mooy fexe ba xale yooyu ñi nga xam ne seen at mu ngi toll diggante fukk ak ñeent ba ñaar fukk ak ñeent ñu gunge leen ba ñu xam lan mooy changement climatique lu mu wundu lan la lu koy indi nan lay feeñee ci sunu kër yi sunu gox yi ak naka lañ ko mën a justement euh, xeex ba wàññi njeexital yi mu mën a am ci askan wi tey yemook journée international de la jeunesse ñu bëggoon fexe jëmmal ko ci loolu moo tax xale yi sànq bi ñuy wax fësal nañ bu baax seen taxawaay ci loolu dañ koy rafetlu nag ndax passeport bi ñu wone ci ñetti fan yi am na solo lool def ñu bett sax parce que xamuñu woon ne euh, ñoom seen xel ak seen xalaat toll na foofu